jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax euh, di leen bëggee di kontaan ci yéen bu baax a baax ci safoo bi ngeen safoo gis nañu ni ngeen ñi ni ngeen ñuy encouragé gis nañ ni ngeen ñi jàppee ci liggéey bu bu baax a baax tey nag maa ngi fii ak ki nga xamante ni ni mooy rëm rëm moo mujjee ba ki nga xamante ni ni mooy ñaabu ndaw ak léegi nag moo ngi toog di xaar tey nag ñu bëgg a waxtaan ak moom bëgg a laal tuuti ci ci ci carrière am rëm naa la. maa lay fay Ouzin alhamdulilah bisimilah inna wala yàlla jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul waaw maa ngi teg di sant samay ñaar waaju bu baax di sant sama yaay di santaat sama papa di sant sama yaay di sant sama sant waa Mbedd Faas fi ma fekk ni gox bi sant ñëpp waa yëmbul boo yëmbul bun maa sant ñëpp waa di rafet tamit sa teewaay rafet na quoi waaw boobaak léegi bi nga bëree kenn gisula nga génn fenn sa digganteeg euh, ñaabu ndaw ñu gis ngeen bëree combat boo xamante ne keroog bi ngay ñëw comme ni ma ko waxee woon rek ñëw nga ànd ak waa Fass Mbaaw gépp ñu gunge la topp ci sa gannaaw nga tuus tuus bu neex boo xamante nii nii tuus bi ba léegi damay toog di ko seetaan ndax keroog la ma tuus moom ci temps ak ak si nga ko teg. Euh, sa digganteeg say supporter ak sa digganteeg xale ak mobilisation bi nga def keroog bi ngay ñëw esaat lan la lu bees la wala boog loo loo loo loo toggoon muy ñor la nga di ko waaj a yàq keroog jour boobu. non xam nga ñun ay fu ñu dëkkee maanaam ñun heure bu ñu jógee rek. Hmm. gox bi dañ ñu topp quoi barke Serigne Bamba. sama supporter nag maa ngi ñoom xam nga rek depuis ba may bëre mbapat ba léegi mooy loolu. Hmm. xam nga ñoom maa ñoom maanaam défaite ak victoire ñoom lañ yemale quoi. Hmm. te tamit xam nga damay sant comme si lu ma jógee dama si sant yàlla bu baax ndax dama xool tamit ñu nga doon daan quoi. Mhm. te toog naa six ans yoo xamante ne tamit mooy loolu da nga daan ay doomu jàmbur kon lii ba ame tamit xam nga danga koy sant yàlla rek nekkaa si li nga nekkoon so supporter aw ma aw ma seen fay parce que Serigne Bamba te su ma ñëwaatoo arène ko defaat noo xamante ne billaahi mu ñaaro arène nationale naa ba mu fees barke Serigne Bamba. mais keroog dama ñëw ci open press Mame Mor. dégg la ko ñuy waxtaan mais ci biir waxtaan bi nga ne ma li may def ci làmb dafa bàyyi li may daj ci làmb dafa metti xam naa ne su may wàccaat ci terrain di bëre ku ma fayul 4 millions du ma du ma du ma du ma du ma sëgg bëre mais ñu ci bari ne booy bi dafa fuuy booy bi dafa yëg boppam booy bi xanaa xamul la ma xew ci dëkk bi ñu ci bari daal nee nañu euh, ni nga communiqué baaxul 4 millions dafa bari woo woon laaj loolu. non Ouzin du question fuuy sax xam ni ku nekk yaa xam sa bopp quoi man maa xam sa bopp ak su ma amee combat lu may Mm. barke yaa waa diaspora bi sama combat passé dajal lañ ma valeur deux millions deux millions yooyu tey mënoon naa xaa jël dañ ko denc ko ku jéem a bu làmb jeex ma def dara mais deux millions si lamb ji laa wax dugal bokk ah, bokkul ak sama gars yi nekk fii ñii la may ay cent mille ñii la may ay deux cent mille ñii la may ay cent cinquante lépp nga jël ko pilik sa pilik trois millions baa nga jël ko def ko si làmb jënd ay billets même valeur ay millions laa jënd si billet Ouzin barke Serigne Touba bu la ay ay millions laa jënd billet yéen a promoteur yi barke Serigne Touba ndax ma xam nga bëgguma nga may tëggal tamit mooy loolu man samay supporter ba léegi yoo xam ne Ousseyn man man damay indi jëndal billet. Mm-hmm. waaw samay supporter na amuñ boo yoo xam ne dañuy defar seen ensemble ay quinze mille ak treize mille. Mm-hmm. dañuy ñëw ba si jour laamu ñu naan la ay lii laa supporter ba xam ne ma chaque laamu damay volontaire lu mot cinquante ticket wala trente ticket dama koy génne barke Serigne sama laamu ji passé am na moo xam man sama xaalis boo xam ne sama grand yi ñoo ma ko jàppalee lu mot mille barke Serigne Touba ma tegu stade bi sama booy bi ma xam naa maa ngi combat lu may daj. te Arène ñun heure bu ñu fa ñu dañuy wane suñu bopp si ambiance ak lépp barke Serigne Bamba moo tax ma ne man boo leen fay temps dama leen di bëreel Ousseyn ñun lamb mooy suñu Hmm. barke Serigne Touba ñun làmb mooy suñu métier ñoo bëgg a tere suñu waajur na ñun suñu waajur yi ñoo yaakaar. mais nag mais nag yow mooy dafa mel ne nga am problème adversaire ndax saa boo bëree ba noppi problème bi mooy adversaire yi. waaw problème moo waral sax xanaa moom moo bëre ku mu mujjee bëreel ñaamu ndaw moom champion la maa ngi ko nuyu au passage Baye Fall la quoi. Hmm. problème moo tax ma bëree ak moom. mais instant gars yi am na adversaire ñu wax yooyu sa baax na adversaire ñu wax yooyu noonu. Hmm. yooyu baax na mais bu ma fay kase ma leen wax damay ñëw. mais yan adversaire la lay wax. li ma li ma rek li ma ma rek na ma wax ma ñaar wala ñett ñu xam. yow yow wowoon nga ma n'est-ce pas seen kii bi. waaw non wax ma man yow li la wax laa. non ñooñu xam nga rek bëgguma tudd seen tur lamb joo xamante ne tamit. teel micro bi tuuti lamb joo xam ne tamit. jubóogoo leen quoi ma du ma si bëgg a wax mooy loolu hmm. noonu. am na ñoo xam dañ may woosa naa ma dégg naa da nga am combat ma leen non combat bu taxawul. Hmm. non ay rumeur la rek man sama combat bu taxawee mooy loolu. Ousseyn man su may bëre àdduna moo may topp. sa diggante dafa Tapha Mbeur. loo gis yow. non man man tëgguma combat. loolu lépp ay lamb la nekkuma sa mais sa diggante ak Tapha Mbeur. non loolu lépp ay lamb la Ouzin ñun ay xal la ñoo war a diggante ak Caatu Ngéwél loolu lépp ay ñun ay xale la ñoo war a suñu biir. Hmm. billaahi. ma man si ponkali laa bëgg de laa bëgg a bëreel de. man sama sama samay morom du ma la naxuloo quoi sama combat passé lu ma dal. ñun ñooy sama morom ponkali ponkali nañ ma si gars yi. ma bëre ak ñoom. Alboury bëgguma ko de. Alboury moom mag ji <laughs> bu sañoon moom Alboury bëre ak man. mag ji mooy kan. waaw ah, mag ji xam nga ko. Ndeye yéen a bokk waaw. <laughs> waram laa ma jël Alboury boobu ki moo bëggoon grand combat quoi. mu ne ma rëm yaa Alboury laa bëgg. ñoom Xaarim Ndiaye. waaw ñoom Xaarim Ndiaye mooy le jour jubilé bi bi. ñu woo ma ma grand combat la la bëgg a jox saa naa ma jël Alboury ma ko déedéet. Hmm. si gars yi laa rek ñun heure bu ñu jugee gox bi dañuy xam nga rek làmb léegi mooy loolu da nga fiy tudd nit moo ne da pare te fekk demeewul noonu barki yàlla mais man poids lourd laa bëgg a bëreel man kaa ma xam ne damaa bëgg a wane sama bopp de barki Serigne Saliou man poids lourd laa bëgg jox ma bëreeg ñoom su fula. barki bu ñu ñëwaatee arène nationale nañu xam ne Baye Faye bi ñëw na. lan wax ñi lay jàppale ak say fans ak say. Ousseynou may jàppale ma seen fay barki Serigne Bam benn grand bu baax sama grand sama lépp Tafa fii ba Japon Tafa maa ngi nuyu. Tapha borom baas sama combat paa xaas bëri la ma yónnee ay Aliou Aliou fii ba États-Unis Aliou léegi la ñuy déggante barke to Touba. billaahi léegi la ñuy déggante moom sama waaye sama lépp des fois su may génnee du compétir sax moo ma yónnee xaalis Aliou maa ngi ko nuyoo passé ay Cheikh Touré Cheikh Touré sama waaye la sama lépp ay ñoom Ibra Fall xam nga ay ñoom Mor xam nga waa Mbedd Fass xam nga dawalkat seree di aw ma seen fay kii sama waaye la. moo la ba mu woowee émission falaaxa defe ay ñoom lës lës caw xir waa caw xir aw ma seen fay ñoom ay borom baax lañ. Hmm. barke Serigne Touba. tey moom su may bëri àdduna day génn yëmbal buun bi. waaw di sant sama jigéen tamit sama combat pass gis naa ñu taxawoo barke Serigne Bamba. boobu ba gisoo maa ngi doon génn nii xam nga rek moo loolu. Hmm. am si ay bagages yu ñu nekkoon. barke Serigne Bamba. xam nga mbedd Fass bi yëpp maa ngi sant ñëpp. xam nga suñ kot tamit maa ngi koy sant bu baax. Mhm. waaw waa yëmbal mbooloo bu tamit maa ngi nuyu ñoom ñëpp di ñaanal boo yëmbal sama waay sama lépp boo yëmbal daa am combat di ko ñaan suñu borom defaral ko ndam waaw ñaan suñu borom defaral ko bu sëbi waaw mooy loolu gis ngeen mbokk yi noonu lay demee tey Reum lañ seet si woon bëgg waxtaan ak moom waaye nag na ko gaa yi seet si na ko gaa yi seet si jox ko ci adversaire yi gannaaw nee na ci ponkali la bëgg xaw ma nag ñan lay woowee ponkal gannaaw nangu nanguute lim ay adversaire am moom di ko wax promoteur yaa ngi fi ñoo ma gën a xam ñu muy bëreel di leen jox dig daje kontaan naa ci moom bu baax a baax euh, di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba ci Wassare Lamb kontaan naa ci yow bu baax nga bàyyi faal nga maa waaw loo sa wàccu waaye geste bu rafet na quoi li nga def dafa rafet barke Serigne Bamba xam nga man sama jëmm bu xewul bi nga ñëw seet si ma mm. defar ma émission dafa nice quoi maa sant la gërëm waaw li ma digoon noonu nga ma ko jox dama koy def yow sama sama mbokk taalibe <laughs> gis ngeen noonu lay demee jaajëf di la jox dig daje ba beneen yoon